Serigne Mbacké Ndiaye benn jeune sénégalais la euh, de nationalité américaine ñëw fii euh, ay côté 2002 après bi ma amee bac rek laa fi ñëw fii laa defee université pare liggéey naa ci structure américaine yi avant may tijji sama woon euh, structure ko Serigne Mbacké Ndiaye ci lan lay yëngatu ko. waaw Serigne Mbacké Ndiaye ñu ngi yëngatu ci ay différents secteurs d'activité. Mm-hmm. <laughs> ndax. biñ paree études yi en deux deux mille 2010 2011 lañ njëkk euh, teg suñu structure bu ñu wax mbedd mi entertainment def naa ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu culture ak yooyu ak événementiel war nañ cee xam dara quoi ndax euh, biñ fi ñëwee gis nañ ne programme yu bari bu communauté africain bi di organiser dañuy dem jël ay structure américaine ñu leen defal ay pétition pour mën a faciliter le visa ñi nga xam ne ñoo war a ñëw pour euh, def manifestation yi ñuy def bi ñëwee ñu gis ne pourquoi pas mënuñu teg suñu structure boo xam ne au lieu ñuy jaar ci américain yi di ko def ñu defal ko suñu bopp ba loolu taxoon na après 2011 lañ teg structure boobu ñuy wax Mbedd mi Entertainment def suñu premier lancement euh, def ko ak ay euh, artistes yoo xam ne Sénégal lañ leen jëlee woon ku ci mel ni Bidéo bu bees jamono yooyu ak euh, yeneen groupe yoo xam ne ñu ngi woon sur place ak yooyu quoi ak yeneen artistes américains yoo xam ne ñu ngi fi woon donc bi ñu jógee ci loolu après lañ commencé nag di def chaque année ñuy organiser ay programme yoo xam ne ay artistes lañuy jël amuñu benn américain boo xam ne wala compagnie américaine boo xam ne associé nañ leen pour indi bépp benn artiste bu mën di nekk pour def ay tournée fii pétition yeeg yooyu yëpp ñun ñoo koy def loolu taxoon ñu teg structure boobu léegi bi ñu demee ba ci biir ñu ne gis nañ ni par exemple euh, léegi bi ñu demee ba ci kanam après ñu daal di ne pourquoi pas gis nañ ni relation économique entre Sénégal ak euh, ak Amérique peut-être ci côté gouvernement beeg yooyu am na liggéey yu bari peut-être ma nga fa ak yooyu quoi mais gis nañ ne secteur privé bi pour pourquoi pas mënuñu bénéficier wu par exemple ci programme boobu ñu wax AGOA bi nga xam ne dina permettre bépp produit boo xam ne day jóge Afrique soo ko dugalee amul benn taxe boo xam ne yaa ngi ko ciy fay ko mais gis nañ ni yeneen pays ñu ngi ciy profité wu mais pourquoi pas le Sénégal instant boobu lañ commencé def ay démarches dem gis waa bureau économique bi bi nekk Washington liggéey ci ak le consulat euh, Sénégal bi nekk New York après dem Sénégal gis ne agence bi nga xam ne moo moom lañ ci war a mën a waxal mooy agence bi ngay xam ne mooy yor affaire exportation yooyu ko ñu dem gis docteur Malick Diop waxtaan ceeg moom après moom tamit xam nga mu rafetlu idée beeg yooyu yëpp euh, c'est ACPEX yeah waaw léegi après ñu def benn euh, mission économique ànd ceeg ñoom dem Washington DC gis waa département chambre chambre euh, chambre de commerce bu amerique ñu boole ñu ak waa MBDA mooy Minority Business Development Agency bu euh, gouvernement américain bi après ñu toog waxtaan ba gis nañ ay vraiment ay résultat yu am solo yoo xam ne génn na ci ndax instant bii nii fi ne bépp produit boo xam ne yaa ngi ko fiy dugal mën nga jaar par ACPEX dinañ la jox euh, comme xam nga day bépp produit booy dugal day am FDA approval boo xam ne gouvernement américain bi seet ndax produit bi respecté nga critères normes yeeg yooyu yëpp avant nga koy dugal fii léegi au muy compliqué ci yow da ngay jaar ACPEX rek ñoom dinañ la lijjantil certificat d'origine certificat analysis ba nga xam ne produit boobu mën ko dugal fii facilement saa nga fay ci benn taxe ak yooyu te liggéey boobu defe naa mooy première mission économique bi nga xam ne moom lañ def afrocentrique ànd ci ak waa bureau économique bu Washington DC defoon ko ak euh, yee waa SFX. ndax produit yooyu ci alimentation la yem wala ci produit yi ñuy utiliser tamit lépp lu Sénégal di defar ci cosmétique. Mm. wala ci matière yi ñuy liggéey. non dafa bari ndax euh, soo xoolee liste bi dem na ci presque quatre mille huit cent yi quelque produits waaw léegi nag yow yaay seet ci lan ngay yëngook yooyu ndax produit yi ngay am mën nga ko indi di nga mën a bénéficier ci agowa bi. kon day mel ne bàyyiwul dara tailleur yeeg yëpp. tailleur yeeg. Euh, lu ci gis naa daal ku ci amoon quelques problème mooy œuvre d'art yeeg yooyu côté boobu moom am na yenn objet yo objet d'art yoo xam ne soo ko fi duwal moom forcément di nga fay affaire taxe ak yooyu mais lépp lu jëm ci wàll produit yoo xam ne consommation lo produit locaux yi bari soo ko fi dugal moom amul dara lool loo xam ne da nga ko ciy fay comme taxe mais la disponibilité de ces produits est-ce que ñoom euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy bénéficiaires yi xam nañ disponibilité bi ak fan nañ ko war a mën a amee pour xam ndax tel produit ou tel produit soo ko utili soo ko utiliser bu ko boo ko jëlee ba bu ko yóbbu au niveau des États-Unis doo am doo fay tax waaw loolu par exemple su fekkee ni ñoom dem nañ ASEPEX ndax information yi ñuy wax nii yépp ñoom yor nañ ko quoi. sur place si sinon tamit su fekkee ni contacté nañu fii nii ñun information yooyu yëpp dinañ leen ci mën a jox dinañ leen mën a orienté dañ leen mën a jàppale ba nga xam ne produit yooyu sax même suñ ñëwee affaire distribution bi affaire yooyu du nekk euh, problème fii nii. Euh, Afrocentric Associates mën nga jàppee ne dafa nekk euh, benn structure boo xam ne genre holding la ndax am nañ ay trois différents départements departement par exemple communication daanaka mooy télé beeg rajo yeeg affaire yooyu. ak am na département boo xam ne tamit daanaka affaire immigration service immigration lay def ndax gis nga def réew boo xam ne da nga fa dem li ngay njëkk a soucié wu mooy. ah. yee légal services yi ndax normalement dëkk boo xam ne wàcc nga fa war nga xam dëkk bi lan ak lan la laaj. su fekkee ne da nga décider pour toog par exemple war nga xool ne yow visa bi nga fi ñëwee est-ce que mën nga koo changer par exemple pour mën a extend par exemple sa sa sa séjour fii nii te loolu yëpp dañ ciy jàppale ñu ci bari surtout ñi nga xam ne dañuy soog a ñëw ak euh, ñi nga xam ne ay étudiants lañ ak euh, commerçant yi nga xam ne tamit dañoo bëgg ñëw bëgg a extend seen ay 94 par exemple toogaat fi yeneen temps pour mën a lijjanti li ñuy lijjanti ak yooyu yëpp donc yooyu yëpp service la yoo xam ne ñu ngi leen koy defal dina dina yombal lu lu bari quoi ci seen nekkin fii nii. jeunes yi waaw ci wàllum immigration gis nañ ne temps yi frontière bi Texas ak Californie jeunes yaa ngi jógee Brésil di dugg depuis bi depuis Donald Trump jógee fii la affaire yi gën a mën a accès mbir moom loo ci mën a leeral. Euh, ak ban ndimbal nga am pour ñoom. ndax actuellement nii daanaka cas yooyu yor nañ ci yu bari quoi xale yi nga xam ne ñoo jaar ci yoonu suuf bi pour dugg si. ndax am na ñoo xam ne côté Brésil lañu jaare am na ñoo xam ne tamit Argentine lañ jógee ñëw ak yooyu ko mais xam nga ku fi ñëw ak sa kees ndax ñu ci bari ay réfugiés politique lañuy def am na ñoo xam ne dañu dugal asaliyam ak yooyu ko par exemple dëkk bi ñu nekk risque la pour ñoom ñu dellu delluwaat fa ak yooyu mais gouvernement américain dañuy soxla ay support ay évidence yoo xam ne moom moo lay permettre par exemple ñu mën la euh, grant ay docu papier yoo xam ne di nga fi mën a toog ak yooyu quoi donc ku ci nekk ak sa cas la mais gis naa cas yu bari euh, problème bi ñuy gën di am mooy histoire bi nga xam ne moom la ñu nettali problème bi nga xam ne moom la ñu am Sénégal wala dëkk bi ñu jógee ba duñ fa mën a delluwaat ñu nag lu ci bari dinañ la toog déglu la defal la interview soo amee avocat dinañ contacter avocat bi woo ko fexe le tout am sa transcript par exemple bi ngay dugg Euh, report bi nga xam ne li nga xam ne wax nga ko fa bañ bind ko ba pare ci dossier boobu en général la ñuy sukkandikoo pour seet nan la ci nan la nan lañ la ci mën a jàppale quoi waaw. d'accord léegi yéen cas yooyu la euh, en général su fekkente ne mën ngeen joxe pour centage comme par exemple su fekkente ne mën ngeen am 100 cas. sans yoo xamante ne ay cas lañ. comme ni nga ko expliquer ne cas yi parfois du nekk benn mais seen euh, réussite en fait pourcentage de réussite par rapport à ces cas yi nga xamante ne moom ngeen di jàppale euh, doomu réew yi nga xamante ne amuñu ay këyit. waaw ndax euh, xam nga actuellement nii ak Covid bi ak corona euh, Covid bi yu ci bari day dafa am gàpp quoi day am retard surtout dossiers yeeg yooyu procédures yeeg yooyu yëpp moo tax ñu ci bari li ñuy gën di def mooy. Euh, gis naa ni ñu bari dañuy ñëw ci ñun wala sànq nii rek bi nga toogee am na ku wootee mais mi ngi wootee xaw ma Texas xaw ma euh, côté yooyu la nekk mais moom xelam dafa nekk ci ñëw ci New York ak yooyu ndax dégg na ne ñun war nañ koo mën a jàppale par exemple pour dugalal ko affaire papier mi mais dama ne ko léegi na ma rappelé waat ci kanam ak yooyu ko ndax force ma am yu ma ko laaj ak yooyu avant muy def transfert beeg yooyu ndax gis nañ ne New York ñoo gën a tolerant par rapport ak yeneen état yi su fekkee lu jëm ci wàll immigration waaw ba tax na ñoom léegi ndax suñu xoolee ñi fi ñëw boobaak léegi bari nañ trop mais defe naa trois xawma de cas ñoom kase ñoo ci amaguñu working permit actuellement nii mais ñeneen ñu ci bari par exemple dañ ñu ngi am rendez-vous nag di dem ak affaire yooyu mais ba léegi nii euh, joxaguñ leen benn waaw loolu moom moo ci nekk mais su fekkee ni ñi fi ñëw par exemple par ay billet 1 B2 wala visa journaliste lool sax amul kii quoi comme visa journaliste moom amul euh, temps boo xam ne moom la ñuy déterminer boo fi war a toog quoi ndax su fekkee ni visa un an la wala visa six mois moom amoo ay naa ni foofu mais ñi nga xam ne dañ fay ñëw par exemple comme b un b de wala beneen type de visa boo am ñooñu en général soo ñëwee soo wàccee ci aéroport automatiquement si système bi dañ ciy def euh, benn trois mois wala six mois boo xam ne moom nga fiy toog mooy ay naani foofu bi quoi mooy déterminer sa nombre de séjour bi nga war a am fii nii loolu nag da ko war a respecté yooyu quoi ndax bu njëkk daan nañ ko système ci passeport beeg yooyu mais léegi nii ñu ci bari dañuy dugg nii rek xamuñu sax ñaata temps lañu fi def mais en général cas yooyu su amee ñun li ñuy njëkk def mooy dañuy rën sa passeport xool ndax yow sa ay naani foofu ñaata temps nga fa war a mën a toog ak lan moo la fi indi par exemple su fekkee ni trois mois lañ la may wala un mois te li ngay lijjanti par exemple mënu fee sotti ci un mois léegi dañuy obligé dugal la ci benn programme boo xam ne dina la permettre par exemple ñu mën a extend sa ay I-94 bi ndax pour nga def extension bi dañ lay laaj raison yi tax nga bëgg ko def mm-hmm. léegi nag lu ci bari dinañ leen ci jàppale ci noonu mais niñ koy defee moom vraiment <laughs> nekkul loo xam ne war nañ ko war a mën a wax ci kii ak yooyu quoi ndax affaire de jàppalante rek mm. affaire de xam nga. Euh, par rapport ak euh, procédure de déportation bi est-ce que nekk na lu yomb ci diggante Amérique ak Sénégal. non xam nga déportation moom lépp mi ngi dépendre ci sa kees ni fi duggeek yooyu quoi ndax su fekkee asaliyam wala réfugié euh, xam nga loi international dafa am lu mu ci wax ak yooyu quoi ndax képp koo xam ne daw làqu la ñëw dëkk sa dëkk yow waroo ko mën a delloowaat ko xam nga daanaka loolu nag lu ci bari moom moo leen di seef ba nga xam ne même case bi su fekkee ni euh, juge bi document yi ngay def convaincre ko ak yooyu même su ko rejeté tamit dinañ la joxaat chance pour nga defaat appel benn temps par exemple benn 90 jours su fekkee loolu weesu na amoo preuve yi tax nga mën a def appel bi dinañ la joxaat yeneen 30 jours yoo xam ne mën nga def motion mais yombul daal par exemple sa cas perte nga ko ñu jàppale yóbbu. koo xamante ne day am problème ak justice. waaw waaw wala day am problème ak. Euh, li fi am yenn saay waaw waaw xam nga doomu américain yi yooyu. waaw ndax africain yi parfois dina am cas yoo xam ne yéen da ngeen ciy jàpp dugg ci ba mu leer leen leen lii cas bu sérieux la ak noo leen koy noo leen ciy taxawee. ndax xam nga cas yëpp cas boo traité yaa ngi ci biir quoi. Mm-hmm. ndax euh, document bi soo koy defar ci suuf dinañ laaj kat moo préparé document bi ni te à chaque fois yow yaa koy signé ci suuf expliqué na yow la donc dossier bépp dossier immigration boo xam ne dugal nga ko rek impliqué nga mm-hmm. waaw loolu loolu loolu ci nekk quoi. Mm-hmm. maintenant à part ça lan yan en fait à euh, euh, immigration bi. waaw waaw ak euh, culture bi. waaw lan la association bi oh. bi société bi comme li ma la expliqué sànq rek. ndax euh, ñun dañoo jàpp ni dañoo war a nekk benn bridge boo xam ne entre États-Unis ak pays africains yi la quoi pour mën a faciliter. donc c'est avec tous ndax afrocentrique la ñu wax quoi. Ah, donc ak pays africains yëpp la ñu liggéeyal. ba tax na chaque année dañuy organiser. benn programme bu ñuy wax Audi Week mooy optimiser votre développement à l'international ndax loolu dina permettre par exemple ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé bi wala ñi nga xam ne ay agence su gouvernement la ñoo affaire yooyu ñoom mission programme yooyu ñuy def dina leen permettre par exemple ñu ñëw fii nii rencontrer ay yeneen entreprise américaines yoo xam ne dañoo nekk ci même secteur d'activité ndax programme yu ci bari programme trois jours lay nekk yoo xam ne dina am ay workshop dina am ay P2B rencontre ndax P2B yi moom mooy facilité par exemple pour ñu mën a am ay joint venture ndax su fekkee par exemple da ngay liggéey ci secteur immobilier ñëw fii nii rencontré benn investisseur américain boo xam ne pare na pour dugal xaalisam ci kii automatiquement ay joint venture mën na am te soo delloo tamit ñun li ñuy def mooy ñooy def follow up bi ñun ñooy def suivi bi ba nga xam ne li nga xam ne tënk ngeen ko réalisation dina ci mën a am ak yooyu quoi ndax xam nga entreprise américain yi fii nii dafa am nu ñuy liggéey yooyu quoi ndax am na ay programme yu bari yoo xam ne da ngay gis ñoo xam ne dañuy jóge Sénégal ñëw def ay exposition ay keeg yooyu yëpp mais gis nañ ni follow up moom moo ciy manqué. Mm-hmm. lan mooy follow up mooy suivi bi waaw comme da ngay jël exemple rek bi fa Obama demee Sénégal ak yooyu ñaata investisseurs ñoo ko toppoon plus de quatre cent investisseurs ña nga fa woon ak ay journalistes ak yooyu yëpp mais lan la ci Sénégal gagné. yaay mi ngi noonu waaw ndax looloo nekkoon problème bi quoi ndax entreprise euh, américaine fu président bi di dem dinañ gis ne foofu dëkk boobu war naa am ay opportunité d'affaires quoi ndax loolu moom moo leen di poussé ñu dem mais à chaque fois nag par exemple ay agence gouvernement bi yu ci mel ni agence gouvernement Sénégal ñoo waroon a teg ay programme parallèle yoo xam ne par exemple ñoom dina leen mën a permettre par exemple ñu dem ci programme yooyu waaw fois bala dem ci euh, benn dëkk pour investir force suñu am maîtrise ci dëkk boobu ndax ci ñaari yëf la entreprise américaine yi du donné mooy information données ak information te dañuy bëgg par exemple ay chiffres la ñuy demee quoi waaw ndax loo loolu loolu loolu moo nekkoon suñu problème ko ndax euh, entreprise américaine à chaque fois dañuy bëgg xam exact number yi bala ñuy def dara ak yooyu par exemple nga tegaloon benn projet boo xam ne par exemple da nga naan 6 milliards la wala 30 milliards ak yooyu. ok kon est ban ban joytu ngeen amal ci gouvernement Sénégal mu mën a jàpp ci loolu ba fi président di demati am uh, ànd ak ay uh, am waaw ñu mën a xool nu ñuy nu ñuy mën a régler problème boobu. non loolu ñoom ñoo war a xam rek par exemple président américain. président Amérique wala président dëkk bu mu mën di nekk su fekkee dafay ñëw sa dëkk di kii automatiquement dina am ñoo xam ne dañ koy follow moom waaw ñoom lay àndal am na ñoo xam ne automatiquement ñoom dañoo xam ne dëkk boobu dara nga fa mais suñ ñëwee nañ fa fekk ay programme yoo xam ne par exemple dina dinañ ci dinañ ci mën a kii quoi waaw ndax ñun liñ mën mooy par exemple euh, programme yi nga xam ne moom la ñuy organiser fii nii mooy forum d'investissement yeeg lépp lu mën di nekk ñu koy organiser fii nii képp koo xam ne ñëw na fi ak B2B rencontre ndax programme yi ñuy def mooy képp entreprise buy ñëw dinañ am sa profil dinañ suñu xamee sa profil automatiquement dañ koy match ak entreprise américaine bu nekk fii nii nga xam ne suñu ñëwee B2B rencontre yooyu ñun dinañ fexe ba dara kii fag yooyu su ci dara génnee nag léegi comme ñun ñoo nekk fii nii ñun ñooy représenté structure sénégalaise bi nga xam ne ñëwoon na ci affaire bi ñun ñoo koy topp ba nga xam ne dinañ mën a résultat yi kii quoi. par rapport à ces résultats positifs yéen loo leen am en tant que peut association ou en tant que euh, entreprise. non xam nga su fekkee côté business bi moom daanaka contrat yi yaa ma ko gën a xam ko ndax day am ay non disclosure agreement yoo xam ne c'est entre l'entreprise bi nga xam ne ñaari entre entreprise yi ak ñun donc. loolu waaw loolu. lan non non noonu lay demee quoi. du bokk quoi am barème pour rek. waaw dossier bu nekk ni nga koy traité. d' ah. ah, léegi bu ñu paree ci côté investissement boobu lu am solo bu ñu nee Harlem sa xel day na ci crime ba tey boo nee Harlem rek Harlem City sa xel day na ci crime. Ah. durant at yi nga dund fii naka nga ñu mën a tënkalee Harlem City ci liñ ci wax ak suñu mbokk étranger yi nga xam ne ñoom fii ñëw te miinuñu fi ak crime yi fi am. yee bu njëkk euh, defe naa ci la gënoon a kéemaane quoi surtout jamono yi nga xam ne dañ fi ñëw mais li am na liggéey bu liggéey bu am solo boo xam ne par exemple euh, association de sénégalaises d'Amérique def na ko euh, jamono yooyu ndax man ak ak këru diine yi waaw mais liñ li liggéey bi ñu gën a mën a euh, biñ def mooy fexe ba suñ ndaw yi loolu ñu gis ci américaine buñ ko gis ci ñoom waaw defe naa këru diine yi def nañ ci liggéey yu am solo mooy daare yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax demal yooyu dañ fexe la tout pour euh, temps bi ngay am free time bi nga am nga di ko passé ji ci daara yeeg yooyu ndax man maa ngi fàttaliku jamono yi ñu fiy ñëw daanaka chaque jour ay yaa ngi dégg ay shooting daanaka trois quatre fois yenn say da da nga yéemu quoi mais comme ñun bi ñuy ñëw tamit affaire yooyu du. sama papa bi may ñëw sa papa la fekk si ko mais damay gis ni euh, du bëgg sax may génn guddeeg yooyu quoi mais comme ñun fi ci banlieue bi laa yoroo ko ndax caaro yu laa yoroo daanaka li ma fa daan gis tamit gisuma différence bi ak fii ko moo tax bi ma ñëwee am na benn fit boo xam ne yàlla defoon na ko ci man quoi affaire ragal du ma dox bay xalaat affaire yooyu quoi mais gis naa ni moom jamono yooyu kéemaane woon na trop surtout ñi nga xam ne dañ doon dawal affaire chauffeur euh, ay chauffeur taxi lañ chaque jour yaa ngi dégg chauffeur taxi boo xam ne dañ ko rey am chauffeur taxi yoo xam ne dañ leen di taal ak seen oto yooyu problème yu bari nga di ko gis ak yooyu quoi mais gis naa ni daal après yu bari soppeeku na ndax euh, soo xoolee ay deux mille mille 2007 2008 2009 daanaka gis nañ ni. communauté bi gën nañoo organiser mais len tamit mu ngi ci woon quoi ndax euh, tubaab yi ni ngi leen di gisee fii nii amuñu fi woon bu njëkk ak yooyu quoi ndax tubaab yi downtown lañ ko yoon mais gis naa ni surtout attaque terroriste yi gars yi di doon def ak yooyu ndax soo gisee attaques yëpp downtown lañ ko doon def tubaab yi dañoo mujjoon di obligé di jóge area boobu mais suñ ñëwee Harlem location yi fii la gënoon a yombee ko moo tax ñu ci bari dañuy obligé sax borom kër yeeg yooyu doon fay ñi nga xam ne ñoo yoroon ay kër ay appartement yooyu di leen proposer yenn montant yi par exemple pour ñu mën a libérer seen kër ak yooyu quoi dem faneen te gis naa ne ñu bari noonu la ñu obligé woon def quoi ndax da am benn chambre salon ngay proposer la si xaalis bu bari ay cent mille dollars loo xam ne cinquante million la te su fekkee ne mangaak yooyu danga nga naan lii capital la pour liggéey ba taxoon na ñu bari sax ci lañ profité par exemple jël boobu mujj move Euh, ñibbiwaat Sénégal wala déplacé wu demaat fane ak yooyu quoi ba tax na gis ngeen léegi daanaka arlem mënatoo wax ne black Harlem la mais white Harlem ngay gis ko waaw mix Harlem la te gis nañ ne tamit gis nga soo xoolee place yi fi nekkoon yëpp daanaka sénégal yi ñoo ko moom africain yi ba tax na moo taxoon ñu doon wax little Sénégal quoi area bii nii ndax soo fi romb sax daanaka doo gis sax ñoo xam ne dañuy wax dañuy wax anglais daanaka américains yi sax dañuy dem ba wolof bi rek ngay gis ko waaw mais gis nañ ni tamit beneen problème ñoom tamit ñu ngi koy am ndax location yi cher na trop Harlem ba business yu bari daanaka seen liis su jeexee daanaka duñ ko mën a renouveler léegi yooyu ko ndax li muy laaj ba tax na gis nga léegi léegi daanaka tubaab yi place yi yëpp daanaka soo gisee tubaab yi ñoo ko jël ay yee kon mën nañu wax problème sécurité moom ngi réglé parce que ci début marché bi gis nañ ne Biden am na fi benn benn benn comment benn rencontre bu mu am ak police Amérique police New Yorkais pour ñu def ay rencontre fexe ba crime yi am ci cité bi yëpp jóge fii kon mën nañ ne côté boobu mu ngi wàññeeku bu baax a ndax xam nga waaw ndax xam nga fii ni côté sécurité moom daanaka da ngay jàpp ni ci côté maire bi la nekk quoi maire New York mm-hmm. ndax. NYPD daanaka mën nga jàpp ne so mën nga jàpp ne benn société la boo xam ne maire bi par exemple ñoo leen kii daanaka pour yokk kii bi nombre de policiers yooyu yëpp loolu ci pouvoiru maire bi ci la sukkandiku ko do affaire de gouvernement affaire de état la te gis nañ ni maire bi fi nekk xam nga ancien policier la woon moom mi ngi nekkoon fii rek police bi nekkoon euh, Harlem fii nii fa la nekkoon moom xam na situation bi ni mu fi demee mais lenn tamit mu ngi ci wàññeekuwul actuellement nii te gis nañ ni mi ngi gën a yokk par rapport ak ay deux ans ci ginnaaw avant maire maire bi di ñëw ndax gis naa ne gars yi jàpp nañ ne sax sabotage la quoi ndax blague yi ñu bari voté luñ ko élection yi di ñëw ndax am na luñ koy rapproché ak yooyu nekkoon na ci ñoom yàgg na ci xam nañ kii xam nañ tamit bi bi mu amee promotion bak yooyu moom ñële la gën a aliyeel ko mooy juif yi ak affaire yooyu tubaab yi moo tax élection yi bi muy ñëw daanaka sanctionné nañ ko ko te gis nañ ni à chaque fois yaa ngi dégg yeneen shooting yoo xam ne gëj na fee am waaw lépp pour saboter par exemple mandaam la nga xam ne élection yi di ñëw gars yi mën ko fee jëlee waat ko waaw waaw ndax soo xoolee élection yi par exemple engagement bi nga xam ne ñun sénégalais yi moom lañ ci defee ku ci black américain yi africains yi ñëpp moom lañ soutenir moom lañ jàppale yooyu te gis gis nga ñu bari amuñu woon culture voté ak yooyu mais gis nañ ni par exemple gars yi da gën nañoo dajaloo par exemple gën a get involved par exemple ci politique américaine te ñu ci bari daanaka jaralu leen élection ku ci nekk day toog këram xamul ne tey la jour élection wala déet mais gis nañ ne pour jël maire bii nga xam ne par exemple soo xoolee origine am sénégalais la day dem Sénégal avant ñu koy kii yooyu maire bi fi nekk ne actuel Adams parce que dama ne bu fekkente ne black américaine si ñoom dañoo gis ne dañoo gis beneen am beneen bët ñu koy xoolee waaw ba tax ñu bëgg a saboté mandaawam waaw yéen en tant que africain ngeen booloo bëgg ko jàppale waaw lan moo waral loolu daal lan yéen ban avantage ngeen am si jàppale ko non liñ mënoon mooy jàppale ko par exemple mu jël office ñu nag am na loo xam ne ñu ngi koy xaar ci ñoom waaw ndax euh, lim ñu mën a jàppale par exemple mooy fexe la tout ba nga xam ne gars yi dañu am benn centre communauté centre boo xam ne pour africain yëpp la nga xam ne dinañ fa mën di socialiser seen programme yi ñuy def yëpp dinañ ko fa mën a def ko waaw service su mi ngi noonu te ñun li leen mën a jàppale mooy am na ay programme yu bari ñu ngi koy commencé ak ñoom ndax dañoo jël à ce vingt par exemple service yi nga xam ne moom lay moom la ñu am te bëgg ko jàllale ci communauté africain bi ñun ñoo leen représenté te service yu bari par exemple ñu ngi ko war a commencer fii ay deux mois ndax dinañ fi commencer di joxe ay cours yoo xam ne pour préparer ñi nga xam ne ñi ngi préparer pour def seen citizenship la te cours yooyu yëpp ñu ngi ko war a def fii par exemple di ko def en français ak wolof waaw di leen ci préparer pour ñu mën a def seen kii am na programme yoo xam ne after school programme la yoo xam ne ñi nga xam ne dañ fee am ay doom ak yooyu seen xale yi suñu wàccee mën a nekk fi benn deux heures trois heures de temps en attendant seen parents yi wàcc par exemple pour mën a jaar fi jël leen waaw yooyu yëpp ay programme la yoo xam ne ñi ngi ko war a def fii euh, euh, sama beeg yooyu te waaw te tamit am nañ ay liggéey yoo xam ne dañ koy offrir ci été yooyu te yooyu yëpp par exemple ñun dañ ñu koy jox nga xam ne dañ mën a recruter ci communauté beeg yooyu ñi nga xam ne ay étudiants lañ te vacances yi defuñu dara ñu liggéey benn trois mois 4 mois jéem a dajale dara en attendant fii ak école di tijjiwaat ak yooyu. ñi nga xam ne ñoo yàgg ci dëkk bi def ci exemple 50 ans 40 ans bu xëy liggéey ba retraité war a dellu Sénégal nan la ñu mën a def ba ci seen ndimbal. Euh, ñu ci bari nag liñ leen di jàppale ndax xam nga fii nii États-Unis ñoom affaire retraite dafa am nañ koy calculer quoi ndax war ngaa am 40 points pour mën a dem retraite année boo fiir say taxe dañ koy jàpp ne am nga année boobu 4 points léegi nag force mu mat quarante points par exemple pour nga mën a éligible par exemple pour euh, pour am retraite ñooñu li ñuy def ak ñoom ki fi jóge sànq nii rek am na ko fi ñëw euh, application beeg yu lépp ba ci interview yi lépp ñun ñoo leen koy defal léegi suñu defee application ba pare dina am benn temps boo xam ne lay jël benn 10 jours yenn saa yi 2 semaines 7 to 10 business day lañ lay wax léegi su jotee ñoom dañuy ñëw fii toog interview yi ñun ñoo koy def ensemble waaw ndax euh, ñun ñoo leen interpréteel bépp dossier boo xam ne par exemple dañ ko war a yónnee waat ñoom dañ koy indi jox ñu ko par exemple ñu scanné ko yónnee leen ko waaw ndax dañ ci def en tant que représentant suñu def application suñu contacter ñun la ñu contacter su ko defee ñun ñu woo leen par exemple ñu ñëw fii li nga xam ne moom la ñu war a def ñu defar ko waaw noonu lañ leen ciy jàppale yooyu quoi. ndimbal bi gouvernement jëloon ci jamono pandémie Covid waaw waaw comme gouvernement américain rek comme yeneen dëkk yi niñ ko doon defee. ñoom bi Covid bi ñëwee business yu bari tëj nañ. gis nañ ni par exemple suñ ci jógul dëkk bi dina gën a jaxasoog yooyu quoi surtout ci côté crime beeg yooyu ndax nit ñi dem nañ ba nga xam ne seen yoon ndax crime bi États-Unis fan lay gën a yokkee mooy période seddaay ak yooyu quoi soo jëlee ay par exemple novembre octobre novembre décembre ndax day xaw a sedd nit ñi force ñu camoufler quoi sol loo xam ne par caméra yi du la mën a jël ak yooyu quoi ndax Amérique fépp caméra la mais gis nañ ni euh, ay côté janvier février mars période boobu nit ñi dañ lay agressé nii ci mbedd mi te duñ camoufler woo waaw amul dara loo xam ne dañ ci doon ragal léegi ils sont obligés ñu teg ay euh, émergence ay euh, programme d' euh, émergence quoi programme d' yoo xam ne par exemple képp koo xam ne am na social sécurité dina ko mën a permettre par exemple mu dem dugal in employment pour na ne liggéeyul nga xam ne gouvernement chaque semaine dina am benn xaalis boo xam ne dina la ko jox ndax loolu dina wàññi crime yeeg yooyu te li ci gën a ëpp solo mooy programme yooyu bi mu amee euh, communauté bi ñu bari ñoom ñu ngi doon jël ay risques di génn di liggéey même su fekkee ni gisuñu képp surtout ñi nga xam ne dañuy jaay ak yooyu même su fekkee gisuñu kenn ci mbedd mi tamit foofu suñu génn ndax borom kër xam nga moomul toog waaw mais mi ngi noonu force ñu génn jéem a defi dara même chauffeur taxi ak yooyu même su fekkee amuñu ko force ñu génn ak yooyu. mais bi ñu demee ba xam ne am na programme yooyu ñoom mën nañ cee dugg ñun tamit li ñu mën a def mooy tijji suñuy office di ko def gratuitement waaw jàppale leen ci application yi fexe ba xaalis boobu ñu ci jot chaque semaine mm-hmm. ba pare doon nañ leen expliquer tamit euh, yeneen programme yoo xam ne mi ngi fii par exemple pour mën leen a fayal seen i appartement ndax soxloolu ñu jël xaalis bi leen gouvernement di ko di ci fayaat seeni i location yooyu léegi nag programme yooyu yëpp dañ leen ci daan dugal ku ci nekk chaque semaine dina am loo xam ne yaa ngi ko doon fay te diñ ci jot vraiment def nañ ci ay ndimbal yu am solo ak euh, surtout business yi nga xam ne ñoo fi nekk tamit jàppale nañ leen ba nga xam ne programme yu gouvernement bi doon teg jot nañ ci seen wal waaw ak euh, grant yoo xam ne state bi ñoo koy joxe grant yoo xam ne fédéral gouvernement américain ñoo koy joxe grant yoo xam ne city bi ñoo koy joxe ak yi nga xam ne par exemple ay organisation ñoo ñoo koy joxaat mhm. ndax yooyu yëpp ay ndimbal la yoo xam ne mhm. vraiment am na taxawaay bu am solo boo xam ne def nañ ko ci pour jàppale leen ci. pour woy la traité yi nga xam ne ñoo war a dellu Sénégal ban conseil wala ku ci commencé liggéey ban conseil nga koy jox ban man ba mu mën a obtenir 40 points yooyu noonu. xam nga 40 points yi moom képp koo xam ne mu ngi doon liggéey. Mhm. mag ñooñu ngay wax ñu bari am nañ ko. waaw ñu bari am nañ ko mais li ci nekk mooy. application yi ni nga xam ne dañ ko def ba nga xam ne ñu approuvé ko foofu lay problème bi en général di nekkee waaw ndax euh, gouvernement américain bi euh, pour nga pour ñu commencer la fay yu ci bari dañ lay laaj ay preuve yu wane ne yow am nga permanent résident carte am nga séjour Amérique wala US citizen nga mais ñu ci bari dinañ matal point yi mais seeni problème mooy nekku ñu fii légalement waaw ñooñu en général soo leen defal seen application yi di leen expliquer li nga xam ne moo ci nekk yaa ngi koy def mais mën nañ ko approuver mën nañ ko bañ a approuver lépp mi ngi dépendre ci ki lay defal entretien bi après waaw léegi li ñuy def mooy application bi dañ ko def ba nga xam ne benn problème du ci am dañ ko dugal mais léegi interview bi mooy mooy problème bi léegi interview bi yenn saa yi ki nga tasanteel mën na la laaj ndax nekk nga fi légalement wala déet wala lan mooy sa kii ak yooyu yëpp su fekkee ne laaj na la ko tamit li ñuy def mooy jël income tax yi nga xam ne yaa ngi ko doon fiil jël ko dajale yooyu yëpp tamit jox leen ne même su fekkee nekkoo fi légalement yaa ngi doon fay say tax mi ngi noonu ndax loolu dina nekk ndimal yu bari yoo xam ne da koy dugal automatiquement ñu approuvé ko kële commencé di jot ay paiement waaw loolu loolu ci amu leen ci benn cas boo xam ne rejeté nañ ko. non à chaque fois dañuy yu ci bari dañ koy rejeté mais suñ ko rejeté da nga ciy topp rek. dañ ci topp de defalaat woo kii coupe kële woowaat kële documents yi ngeen ma joxoon yónnee naa yëpp léegi lan moo ci des affaire yooyu quoi. Mhm. noonu rek ngay def ak ñoom par exemple bañ bañ approuvé seen seen i mhm. application yooyu. ok kon fi ñu koy tëjee mooy ACTV bi benn télévision en ligne bu ñu créé. waaw communauté sénégalaise di mën a rencontrer foofu di dajaloo. Ah. di mën nga si ñëw. ok ACTV moom li taxoon ñu teg ko lañoo waxoon nañ teg benn plateforme boo xam ne dina ñu permettre ñun africains yi ñu mën a exposer par exemple problème yi nga xam ne moom la am euh, que problème yi nga xam ne moom la nit ñi sax am su ko defee programme yi ñuy def à chaque fois dinañ invité koo xam ne expert la par exemple professionnel la ci liggéey bi nga xam ne moom lay def lu ci jëm ci wàllu banking par exemple am na benn programme boo xam ne concept la. li ñuy def mooy dina am koo xam ne ki koy ki nga xam ne moo koy animé ku am xam-xam la par exemple ci domaine bi nga xam ne moom la nekk côté économie waaw ba nga xam ne système banking bi tamit à chaque fois dañu leen koy expliquer par exemple am na émission boo xam ne da ci doon expliquer bénéficiaires yi par exemple nga indi ndax soo xoolal sénégal yi ku ci nekk comme ni ni ñu koy defee Sénégal rek sooy dem da ngay tijji compte boo xam ne compte personnel la mais dolli woo ci kenn koo xam ne par exemple su yàlla tere su doomu aadama bi génnoon àdduna compte boobu su moytul xaalis bi fa nekk da koy ñàkk ak yooyu ko ndax am na benn temps boo xam ne gouvernement bi da koy téye state state bi euh, dañ koy téye mais automatiquement dañ koy joxaat gouvernement beeg yooyu quoi suñu amul kenn koo xam ne moo ñëw réclamer xaalis boobu léegi nag pour éviter loolu force ñu gë xamal leen ni képp koo xam ne tijji na compte banque ne jéema seet koo xam ne wóolu na ko yooyu dolli ko ci compte bi nga xam ne yàlla tere su dara amee moom xaalis boobu dina ko mën a jël récupérer ko ñu seet nan la ñuy def pour euh, famille am mën cee jot ak yooyu waaw ak euh, programme yoo xam ne gis nañ ay taximan yu bari Sénégalais soo xoolee fii 75 pour cent yi daanaka ay taximan lañu mais à chaque fois da ngay gis koo xam ne danaan maa ngi ci tali bi maa ngi rey sama bopp ak yooyu mais su weer bi deewee daanaka du ci gis dara ko su calculer am am daanaka lépp day dem ci ay ticket yoo xam ne waaw policiers yi jox nañ ko ko wala kii yoo xam ne par exemple euh, TLC jox nañ ko ndax euh, New York City euh, dafa am benn mafia boo xam ne moo fi nekk ci wàllu taxi yi ndax su fekkee yeneen état yi amuñu commission boobu waaw DMV kese lañ am mais su fekkee New York pour taxi yi dafa am benn agence boo xam ne moom moo ko yor ñu leen wax taxi limousine commission léegi nag ñooñu daanaka mën nga jàpp ne 30 pour cent bu chauffeur bi taxi. bu chauffeur bi am ñoom ñi ngi seet nan lañ ci mën a të tëqee dara ndax dañoo am seen policier yoo xam ne ci tali bi lañ nekk am tali buy euh, am ay euh, employé yoo xam ne ci mbedd mi lañu ñu nekk yee sooy dawal taxi New York yellow kase nga mën a taxaw yëkkati sa loxo weef ko nii mu taxaw mais black car yi bu mu ci mën di nekk amul droit def ko ñoom nag lu ci bari dañuy wut seen employé yoo xam ne ci mbedd mi la ñu nekk taxaw mel ni kuy jël taxi mais soo dee chauffeur taxi soo gisee ko yëkkati loxoom looy def dangay ngay taxaw pour jël ko léegi nag te loolu amoo droit def ko te lu ci bari ñoom lay nekk dañuy dugg sa oto ba pare laaj la seen permis de conduire après jox la ay ticket yooyu te en général xaalis bu bari lay nekk waaw ndax ñoom noonu lañ ko réglementé quoi bépp koo xam ne black card la yor dafa war a résister ci benn société boo xam ne ñoom kase ñoo la am droit jox comme Uber yi Uber taxi yi. ni ñu comme holding la benn boo xam ne trois différents département la am na département communication global service ak travel and tour donc euh, travel and tour bi am nañ agence de voyage boo xam ne. lu ci bari dina moo ñuy faciliter sax bie avion yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci programme yi nga xam ne moom la ñuy def ndax euh, daanaka ñu ci bari di ci participer ñun ñoo leen jaay billet bi day bokk ci package bi am na ñoo xam ne nag ñooy jëndal seen bopp bie quoi mais ak groupage beeg yooyu dina gën a yombal prix bie yeeg yooyu donc côté volet communication bi daanaka mooy télé bi ak euh, rajo bi am na tamit benn magasin boo xam ne ñu ngi ko war a lancé xam naa fii ak euh, quelques mois rek avant été bi waaw fan yi yëpp ñu ngi ci waxtaan ak euh, groupe bi nga xam ne ñoom ñooy les concernés quoi. ah waaw waaw vraiment sant euh, gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teewlu émission bi émission la wala kii la ah waaw waa Sénégal ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci. ah non bi moom macha allah te gis nañ tamit éléments yi ngeen xam ne ñi ngeen fi yoon ne vraiment professionnalisme gis nañ ko ci ak euh, yar bi ak euh, respect bi nga xam ne ñi ngi koy jox par exemple ñi nga xam ne euh, ñi ngi tasanteeg ñoom vraiment ñi ngi leen di sant di leen remercier di leen ñaanal jàmm te li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla jàppale leen ci te mu nekk lu gën ci yéen jërëjëf Sénégal